Heavyweights.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 këy mbir moomu nag soo wattuwul dana jur coow lu rëy a rëy ma ne directeur d'IFER boobu ca campus bu Fatick bu université bu Saloum bi ñu duppee El Hadji Ibrahima Niass la nekk moom daal lañu ñu jiiñ ne moo wiyoole ab xale bu jigéen bu am fukki at ak ñett ba xale bi jaare fa am xale bu jigéen bi di victime bi nag mujj nañ ko jëbbal organisation boobu ñuy wooyee AEMO action sociale en milieu ouvert lu li mel nag nee ñu ab utiliser ko de ay moo naa nag ab organisation la boo xam ni dañuy yëngatu ci wàllu wu ni mel maanaam xale yi ñu wiyale nu koy nëpp nëppal nee ñu nag directeur boobu dafa jëloon xale bu jigéen bi comme femme de ménage ci confidence yi xale bu jigéen bay wax de nee na ci loolu la ko directeur bi sàkkoo ay yooni yoon pëtalaw xale bi ne ba mu jaare ci jële ci ëmb <laughs> moo tax ma ne xale yi dee leen teel a wax bi loolu amee nag xale bi dal koy wax wax yaayam yaayu xale bi dal di interpeller directeur bi waaye directeur bi lànk ba tëdd ci naaj bi ne du moom yaa ji jaaree fu nekk nag amul solution ci la contacter organisation bi di AEMO naka noonu AEMO dal di jël dossier bi jébbal ko procureur bu Fatick waaye nag li leen jaaxal ci mbir mi mooy ba ñu jébbalee bi procureur bu Fatick ba léegi ma ne enquête bi puusul paasul tàggat tembe la def ma ne réew mi day doole tooñ moo tax maa ne ji tal réew mi moo gën a graaw korona laa la xew ca ngee jàngoro mun a doy ma ne comme film laa wax altine jëm talaata weesu ay samba booye ñëw ci commune bi di njeejeng tal di armé wu ba marde taali yori fetale jaasi tal songu marché ngeejeng nu nan detawaay ñu daggi fa ñaari kantin yóbbu fa lu toll toll ci juróom-ñetti million bi ñuy def lalu nag samba boy yi armé ba noppi kagule te ñoo jàpp vigile ba fa nekk lapp ko lapp yu métti laa la koy takk sooga def seen njombe samba boy yooyu nag nee nañu ci ab kat kat bu weex la ñu ñëwee gannaaw bu ñu defee seen musiba ba dem nag ci la ñu wa waa gendarmerie ñu ñëw ci béréb bi dal di caytu fi mu ne ubbi nañ ci ab lanket moo tax ma ne ne jàngoro ji dal réew mi moo a graw korona la wax ma ne li xew ca ngeejeng moo xew ca kayaar nekk ca kumpentung foofu tamit kat-kat bu weex bee fa ñëw démb ci ay boori wenteur dal fa songo ak waajuy jaay weew waa dal di daw kaye dal di fay dugg roñ lépp la fa nekkoon samba boo yooyu tamit ba ñuy ñëw foofu nee ñu dañoo kagulewu yor ay fatala ki jaasi ma <laughs> ne ku armé xam moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax ca université Gaston Berger waa Jamra lancé nañ fa ab fatwa bu mag ngir xeex ak bin bin yi di feeñ <laughs> ma ne na woon ni bàyyi ili da koy tere tere. Baye Ili da koy tere. Baye Ili da koy tere. waa Jamra ñoom it dañu koy tere nee ñu bëggatuñoo gis bin bin ci université yi ndax xale yi bu ñuy jàng si ay tuba yu gàtt la ñuy sol ñu naan deetawaay ñu teg ci ay bodi yoo xam ni seen jumbax yëpp ci biti lay nekk ba noppi rangé ci seen digg yi ay bin bin yoo xam ni ma ne mën naa def musiba ci biir école yi moo tax waa Jamra nee ñu eti jant bu ko fa defati nañ ko alamaan téeméer ak ñaar fukk <laughs> ngeen ci waroon boole tubéy yooyu xale yi di sol yëkkati ko ba ca kaw nga xam ne maari détaali lépp ci biti lay ne yow mi gumba fi sax léegi moo gën di fi xool mu doonoon seen xibaaru bës dig dage beneen yoon ci yeneen xibaaru bës